ngeen jot suñu vidéo nag foo leen si biir réew mi wala si biti réew da ngeen si Tawfekh ngeen mën a jot moo leen mën a xam li kon ñu jox kàddu gi nga xam ne mooy kàddu gi tëj jotaay bi ñu jox ko sëriñ Mouhamadul Mansour su paree rek ñu teg teg li teg war a teg waat nee na sëriñ Mouhamadul Mansour nee mu ngi wax alhamdulillahi nee na mu ngi sant yàlla mi nga xam ni yàlla mi nga xam ni ci ay xéewalam lépp lu fi mat tey lu yiw tey lu baax rek ci xéewalu borom bi la loolu amee nee na ci yiwu borom bi ak mbaaxu suñu borom ak yërmande suñu borom ak njubug suñu borom ak ngëneelug suñu borom ak teddug suñu borom. nee na si lay wàcce barke yépp barke boo gis rek ci yii mu lim ci lay wàcc nee na mu ngi julli bu baax ci sangu-sang yi di sayyiduna muhammadin sallallahu alayhi wa sallam miy ndaw suñu borom moom mi nga xamante ni mooy bëtu yërmande bu borom bi subhanahu wa taala nee na loolu ni mu ko defee ci moom la ko defee ci ñi nga xamante ni ñooy ay collègues yi yonentam ak ñi yàlla yónni yépp ni ki noonu njabootam yépp ak i saxaabaam noonu la jullee ci ñoom nee na mu ngi ñaan yàlla gërëm mu ngi ñaan yàlla barkeel mu ngi ñaan yàlla kontaan suñu maam ki nga xamante ni mooy bëtu maanaam cofeel li nga ki nga xamante ni bu ko yonente bi xoolee xol bi sedd loolu waxinu arab la mooy ki muy bëgg a wax muy suñu maam cheikhul xadim mbakke radiallahu anhu nee na ak ci mbokkam ma ak soppeem ba ah, na ñu bokk doon ay mbokk coppante ci deret ak ba pare bokk diine ji yooyu yépp ñu bokk nee na ki muy wax mooy boroom bërëb bu tedd bu sell bii ñu nekk ki muy wax bu ngeen ko xamul mooy maam Cheikh Al Hadj Malick Sy radiyallahu nee na niki noonu lay ñaan borom bi subhaanahu wa mu wàcce nee na lépp luy tedd nga ak lépp luy ngërëm ak lépp luy mbaax ci yërmandeem gu yaatu nga moom suñu borom nee na ko wàccee ci ruuwu suñu maam ju baax ji muy bëgg a wax maam mutu fa tey dana de ki nga xamante ni <laughs> Malick la woon de ah nee na mooy ki nga xam ne moo moomoon suuf sii ñu nekk nii macha allah nee na ci mbaaxam maam mutu fa tey jël suuf si nga xam ni lewoon na ko domb jox ko hadiya maam Cheikh Al Hadj si nee na kenn réerewul nag nii suñu maam ji muy waxoon di maam mutu fa tey nekkoon na di ku bëgg doonoon taalibe doonoo nit ku ku namm ci loxo kan hakada nee na ki nga xam ni moo jëloon suuf si jox ko maam Cheikh Al Hadj kenn ku ne xamoon na ni ku bëggoon lool ku xéroon lool ku amoon cofeel gu rëy ku doonoon taalibe ci maam Cheikhul Xadim la nee na kon jagsaaw cofeel gu sell googu nga xam ne moo doxoon ci diggante maam Mutu fa tey ak maam Cheikh Al Hadj ba tax mu tere la ko pàkk bii cofeel googi mu nga rogaate si buumuk cofeel gi nga xam ni moom la yàlla takkee woon diggante ñaari xol yu sell yu tedd yi muy maam Cheikh Al Hadj Malick ak maam Cheikhul Khadim loolu nag dafa war a doon sas wu rëy ci ñun taalibe yi ku bokk ci maam Cheikh Al Hadj ak wala nga bokk ca mbokkam mayit di maam cheikhul xadim di mbokkam mu tedd moomu nee na ba loolu rogaat di rogalaat ci turuq yi fi nekk yépp ak jullit yépp yàlla nañu leen yàlla fayal nee na mel na ni suñu borom dina leen fay insha allahu ndeysaan nee na ginnaaw ba mu jiitalee nuyoo yu tedd yu sell yu mag yoo xam ne dafa jóge ci xol sell lool nag nuyoo cofeel delloo ko fadilata cheikh nee na kii nga xamante ni mbokkam la di soppeem di ku mu bëgg lool ci xolam nee na di jullit di ku gëm yàlla te yiw ah doon doomu ñu tedd ñii muy bëgg rëx doon it sëtu ñu tedd ñii muy bëgg a nee na ko xamul ki mu bëgg a wax nang ma ko laaj man man leen ma Cheikh Mouhamadul Bachir mii lay wax nee na di doomi imam bu màgg bii suñu maam ju baax ja sëriñ Abdul Qadir Mbàkke mi nga xam ne moom la ñu doon wax al imaamul akbar yàlla na ko yàlla gërëm moom suñu maam ju baax jooju nee na mu ngi lay nuyu bu baax nee na wallaay xam na ni li mu la bëgg nuyoo ak yéene ji mu am ci nuyoo bi tële na ko moo tax day dénk yàlla rek loolu mu defal ko ko nee na yàlla na ko yàlla wuutu ci li mu bëgg te manu ko yàlla fayal ñu la sa tànk yu tedd yi sëriñ bi ak kàddu yu tedd yu am solo yii nga fi wax ak kàddu yu tedd yi nga xamante ne suñu bàyyi Cheikh Mouhamadul Moustapha Jatara jotal na rotal na ko fi ci sa ndigal sëriñ bi loolu lépp nag nee na mu ngi lay ñaan nga yéegal ñu ko ca kilifa gu tedd ga cheikh mouhamadul muntaqa mbàkke ibnu cheikh mouhamadul bachir mi nga xam ni mooy sa jur ba pare di sa turandoo te wóor na ni nee na suñu baay bu baax ba cheikh abdul qadir mbàkke radiyallahu anhu nee na bi mu bàyyee ñépp jël la duppee la magam ju tedd jooju wallaay ci yéene maam Cheikhul Xadim la ko defee woon nee na bi mu ko motteleelee yërmande maam Cheikhul Xadim ci njabootam macha allah moo tax nee na ñu rafet njortu ni ci responsabilité yii la suñu borom dénk nee na du fii de ca kaw la ca azal fa la yàlla décidé woon ni responsabilité yii dinañ la ko dénk nee na ba mu neex ko mu jël la sant la liggéey ci keppaaru moom Cheikhul Khadim ak doomam yu baax yi ak sëtam yu baax yi ba ci xalifa bu tedd bi Cheikh Mouhamadul Muntaqa Mbàkke nee na yàlla yàlla sàmmal la lool yi lépp sàmmal ko sheikh cheikh mouhamadul muntaqa mbàkke yal nañu yàlla fayal wayjur yi jiitu dale ko ci maam cheikhul xadim ak ak wayjuram yu tedd ya jóge ca ñoom ak njabootam yu tedd ya jóge fa moom nee na mu ngi lay ñaanal yàlla na nga yàgg nekk taalibe maam cheikhul xadim ba pare di ko liggéeyal yàlla na nga yàgg di naal ngërëmu suñu boroom ak ngërëmu yonent bi alayhi salaatu wasalaam mi nga xam ni mooy soppee maam Cheikhul Khadim nee sa ngërëmu maam boobu yàlla na yàgg di baawaan di saawaan ci sa kaw insha allahu nee na ginnaaw ba mu jaaree ci sa bàyyu tedd yi ngeen bokk ak kilifa yu tedd yi nga xam ni yéen ko bokk ba ci cheikh Muntaqa mu bi mi fi nekk macha allahu nee na mu ngi yóbbaale ci nuyoo bi cheikh Mouhamadul Mamoun Bousso ginnaaw Serigne Galas Kaltoum ak njabootu maam cheikh euh, maam cheikhul xadim gi nga àndal yépp nag macha allah nee na ñi ci sant Mbàkke ñi ci santul Mbàkke yépp nag la wax nee na doy na tedd nga doy na it sigare muy mbégte bu ëpp ab jullit yàlla askanele ko ni la yow daal ci maam Cheikhul Xadim nga bokk radiyallahu anhu nee na loolu lépp nag nee na dafa am rek lenn lu ko waral Cheikh Mouhamadul Mamoun Bousso mii bi Malik Hassan II doon ubbi jumaam jee nekk ca Casablanca ñépp di ko seeti ci ñiy dem Maroc maam ju baax ja maam Cheikh euh, Abdoul Ahad Mbacké radiallahu anhu Serigne Mouhamad maam Bousso mii la yebaloon mbokkam ma di Cheikh Alhaji Abdoul Aziz Sy Dabakh yebal ko moom Serigne Mouhamadul Mansour boole ko ak magam Mouhamad Baroud si mi ngeen xam nga xam ni ku ko xam ne xam nga la jàpp si dama lii muy wax nag guddi gàmmu la 1993 nee na ñoom ñii ñoo àndoon dem wuutu kilifa yu tedd yi ca bis bu màgg booba ca Maghrib loolu doo doon bis bu rëy lool ca buuru Maroc ak peuple Maroc yépp loolu doonoon lu rëy ci ñoom nee na 1983 itam Baye Cheikh Abdoul Ahad Mbacké yabaloon na leen ak Baye Abdoul Aziz Sy Dabakh Alaaji Abdoul Aziz Sy Dabakh nee na mu ànd ak magam ju baax ja kilifaam gu baax ga Cheikh Mouhamadul Mamoun Ñang nee na ñu bokk ci diine bokk ci deret nee na ni ñu bokkee ci Mbàkke ak Mbusoobe neenu noonu la ñu bokkee it ña ngeen ga ca aafiya ba suñu maam ju baax ja maam Serigne Fallou Mbakke ak way juróom bu baax wa suñu soxna Awa Ñang suñu maam soxna Awa Buso radiyallahu anha ak njabootu maam Cheikhul Khadim yépp nag nee na 1983 nee na ba ñu demee ak Serigne Mamoun Ñang nee na fekk na muy jëndi ay téere téere yu néew a gis ca jamono boobu nee na suñu bàyyi bu suñu maam ju baax ja maam Serigne Abdoul Ahad Mbacké indi ko Touba ca bibliothèque ba bu maam Cheikhul Khadim radiyallahu anhu ngir jullit yépp rek jariñoo téere yooyu nee na moom Serigne Mouhamadul Mansour nee nekk na foofu ñaari weer nee sa mbokk ma sa doomu baay ba sëriñ Maodo Touré téye ko nangootu koo bàyyi nee la mu doon doxi sotti na nee na mu ni ko daal fii moom danga fii fiy des rek téye ko rek nee na te booba sëriñ Maodo Touré mu maam Hadi Touré nijaayam daf ko rusoon lool di Cheikh Al Hadj si Aziz Sy ba mënu koo wax ni ko ah Maodo soxla naa na Mansour de ndax mag ñi ak seen yar ak seen teggin ak seen cofeel ak bàyyi gi nga xamante ni bàyyi na ko xel sëriñam di sëriñ Hadi Touré te xam na ni bu baax nag Maodo Touré mii ginnaaw ba mu doonee doomu sëriñ Hadi ture it sëtu maam Cheikh Seydi El Hadji Malick la te Cheikh El Hadji Malick mooy sëriñu Cheikh El Hadji Abdou Aziz Sy te baayam moo ni woon ah. waaw waaw nee na ab sëriñ boo ko bëggee wekk boo ko bëggee fonk lépp lu dend ak moom ak lépp lu ko jege danga koy wekk da koy fonk nee na moo tax li ñu nekk yépp ca keer ajjuma ju nekk ñu ànd ak sëriñ Maodo Touré mook sëriñ Maodo Mamoun ñan ñu dem dem benn université bu tudd ñu ñu tuddee benn saxaaba bu ñu tuddee Amr ibn al-As benn ñu baal ma benn jàkke ju rëy ju mu tabaxoon foofu fu tudd Fostat jóge fa jóge fa nee na suñu jullee ba pare dem ca sang bu baax ba sëriñ saalixu mbàkke ibnu cheikh mahamadul moustapha radiallahu anhum boobee yow boobu jamono euh, moo doon ambassadeuru sénégal foofa ca égypte nee na jotaay bu mel ni bii leen suñu borom may ci yow nee na noonu lañ daan toogee ak Serigne Saalix waxtaanu diine waxtaanu mbokk waxtaanu gor ay soppe ay wóllëre yu seen xol fees dell ak orma ak yërmande ak mbég nee na loolu daf leen daan faj ba dootoo amati benn jaaxle nee na loolu lépp nag Cheikh Mouhamadul Bachir nee na wallaay sa teewaay bii sa dikk gii nga dikk fii ci jagsaaw moo ko yeesalaat yàlla na sax yàlla na sax ñu ciy sant ñu ciy sant si turu Serigne Babacar si Mouhamadul Mansour Al Khalifa nee na di doomu turandoom ak rakkam Serigne Pape Malick ak seen rakk Cheikh Al Hadji Malick seen rakk Serigne Babacar si Abdoul Aziz ñu gën ko miine ci njool Fuuta. nee na ñii mu film yépp doon ay kilifaam nee na ñu ngi ciy sant yàlla bu baax ci sa mbokk mu baax mii seen mbokk mu baax mii suñu mbokk mu baax mii di Chérif Ahmed Tidiane Sy ibnu Cheikh Alxaaji Abdul Aziz Sy Dabakh nee na lii daf ko wax ci turu kilifa yooyu ak turu Cheikh Mouhamadul Muntaqa mi nga xam ni mook Serigne Babacar Sy Mansour nee na dañu am responsabilité bu rëy ci ñoom ñaar bu garaaw a garaaw nag bu am danger sax responsabilité bi ci ndénkaane bi nga xam ni suñu boroom moo leen ko dénk ñoom ñaar ci njabootu yàlla gii ñu am fii ci Sénégal ku ci aju ca tariqa ba ñu bokk ak ku ci ajuwul nag ndax mbaaxu suñu boroom bu muy sédd jaamam mooy demee noonu ba tax na Chérif Sidi Ahmed si wallaay wuutu nga sa mag yooyu ci rafetal ci yéwénal ci defar comme ni ñu ko waxee ci yow noonu yi nag lañ koy waxee ci ku ànd ak yow ba ci sëriñ Cheikh Gueye mii bu bàyyi bàyyi alaaji Ahmad Gueye yàlla yàlla yokk leeru baay boobu ba ci sëriñ Babacar Lo mii sëriñ Khalifa Babacar Lo ba ci ñoon Pape Faye ñoon Abdoul Aziz Thiakh ak waa Fass yépp ba Fass daj nee na waaw nee na nga baal ko rek tuddaaleel ko ko nee dafa nekk ci sa wet xam ni nee na xam na ni yow yaay moom waaye moom mooy yow ndax sa cofeel xam na ni ci la ñuy feey fa te nit dina ëmb ci biiram ak ci biir xolam loo xam ni wallaay aajowootu sax bëtëm di ko xool nee na lu yàlla tax mu jóg loolu loo xam ne lépp yàlla la loolu day sax di continuer nag Sid Ahmed si yaag sa rakk Sëriñ Alioune si nee na ginnaaw ba mu tuddee kilifa yi yaag Sëriñ Aziz si bu Pape Habib si maam Habib maam Sëriñ maam Alpha yi ma yoro mu Cheikh Alhaji Abdoul Aziz si Dabakh ñoom sëriñ Hadi si bu suñu maam maam alaaji si nee na ak soppe yi nga xam ne moom lañu am te ñépp bëgg la yow sëriñ Sidi Ahmed jóge fu nag ci Sénégal ñii jóge caaro yi ñii jóge Thiès ñii jóge fu ne rek nit jóge na fa ak sang seen sang yee nee na du def ci jotaay bi lu dul sant yàlla nee na bu dul woon teg dara lu kaddu yu sell yii fi jóge bàyyi ko ci xolu Cheikh Mouhamadul Bachir Mbacke ak Cheikh Mouhamadul Moustapha Diatara ak tabarakallah Cheikh Ahmed Tidiane si Malick ak Cheikh Abdoul Aziz mi nga xam ni kaddu yàlla yi nga xam ne moom la fi jàng moom Moulay Abdoul Aziz mooy ah mooy miskul xitaam ànd ak ki nga xam ni moo yëngal himma ak yitte ngir ngir wuutu mbokkam yépp ci doxi tànku jàmm ak cofeel ak kóllëre di ko sàmm guddi ak bëccëg di ñëw tuubaa di moom daal dëkk rek di dem Touba moom Chérif Sidi Ahmed di dem fu ne nag ci Sénégal këru diine goo fi dégg Chérif Sidi Ahmed sol na dàllam dem fa ci ndigali ay kilifaam ndeysaan yàlla nañ ko yàlla defal ñun ñëpp ñu ñu ñu ñu ñoŋu ci buumu yàlla gu dëgër gi waaw nee na loolu kay dañ koy dëggale kàddu yàlla gi nga xam ni waxam moom du deñ nee na mooy leen ci buumu yàlla gi yéen ñëpp te bu leen tàqale ko ngi jéggalu ci kàddu yu guddi yi nee nee na xol bi moo fees rek macha allah moo waral loolu nee na fees na ak mbég comme ni ko tabaarakallah sa mbokk mu baax mi Serigne Sidi Ahmed waxee nee na Serigne Sidi Ahmed mii nag nee na mu ngi gërëm mbokk yi fi ñëw yépp di leen ñaanal yàlla yéen ñëpp yàlla yàlla fay leen oh waxal nañu yeneen bi alayhi salaatu wasalaam nee na de leen jokk seen bokk gi donte la sax ci nuyoo la nee na loolu day firi alquran rek nee na borom bi dafa wax ni yéen gaa ñi wax ni gëm ngeen yàlla nee na muñ leen te ngeen sax ci muñ googu te ngeen takkoo jàppalante ngeen àndandoo nag ragal yàlla bu ngeen bëggee yàlla boole leen ci ñi texe na ngeen mel noonu nee na nag tànk yooyu da ngeen leen ko yombalal tey ba tax na Serigne Sidi euh, Ahmed mu ngi nuyu gendarme yi di leen gërëm bu baax ak garde yi fi ñëw ak chauffeur yi ak transporteur yi ak bépp mbokk mu fi teew yal na yàlla fay leen yiw nee na yit mu ngi gërëm bu baax presse bi moom Serigne Sidi Ahmed macha allah ak presse bi yépp macha allah. ak ñi ñëw ñëpp rek ngir jàppale leen ci bis bi ñëpp rek ci ginnaaw sëriñ Sidi Ahmad si ndeysaan loolu la tëjee kàddoom julli ci sang bu tedd bi sa amin ya rabbal alamin nii mu toogee nii nii ñu toogee jàkkaarloo ak moom yàlla bu gémmiñ tàbbi ci waxtu wi nee na ku sa bëgg-bëgg defaruwul fi ne nii nee na kër kër du moo la koy may mu ngi ñaan nee na na ñëpp wax amiin nee na muy ñaan boppam ñaan ñëpp ñu may ko mu jóg ndànk amiin fafir lana walima min baynina nasabun min jiati tin aw fi dini yàllamin fafir lana